alal doomu aadama ak saytaan mooy lu bëree bëri waaye a bàyyi na ma nekkee université fay nañ ma cent mille francs keroog paas laa ci la laa ko jox du ma ko fàtte ma jógee kër Dakar laa laa ci jóg ko dafa am loo xam ne nii dañ ko bàyyi xel gis nga kii jëm moom jox gi du moom ngay jox nañ ko bàyyi xel tey loole ma joxe woon maa ngi fayeeku ñettam lan na mu wàññi dara te wala lazim keroog paas dong laa ci génn nañ ko bàyyi xel nañu bàyyi xel ni kii sequñoo moom dara am na ci jëmm ci daal yoo xam ne suñu borom dimbal leen man de yàlla dimbal na ma ba wala lazim avant may jébul ci moom am xam naa lu wér loo xam ne yenn débat sax buñ koy wax moom mi sax wax ci ma mbokk taali bi nii <laughs> jëfante yooyu man dama ko du déglu sax fat xam nga tax ko déglu yooyu man dama koo dépassé nañ xam ne suñu borom la ñuy jëfantee nañ ko bàyyi xel kii boo dogee ci keppaaram wallahi al azim yaa ngi ci keppaar suñu borom soor daal nañ ko bàyyi xel ci jëmmam ji la yàlla moo ko xas def nañ ko bàyyi xel ku fi nekk te mu wóor la ne yaa ngi bëgg a doxe yenn doxe ni wallahi al azim la la jik sax mooy teel rocceeku sax dem moo moo la ji waaye bu fi ji ma yàq nañuy defar wala ñu noppi waaw fi kuñ fi bëgg sa jëmm tax ñu bëgg ko kuñ fi japp sa jëmm tax ñu japp ko man bi may dox di ñëw kër Mbaye Fall di wër fa fekk la ci dara ji xaw ma woon kenn ci mbolom amna sama fulla sama fayda nag ku ma ci japp say sa jëm tax ma japp ku ci ku la ci bàyyi ma bàyyi ko yonent bi salaa salaam suñu demee mbokkam ba ñu suñ borom namé mbugal ñoy ñooñu dana jéggal jéggale dañu xamul waye man day sama jëm ju xébu ji ma ngi jéggulul bolem seytaan yi ñak la xam rek la ma rek la ay dimbal nañu ba solo ñu ci sa diir ba ñu xam la suñ la xamé rek li am lepp dinañ la dinañ la liggéeyal dinañ la toroxlu sa kanam man de maa ngi toroxlu Mbàkke dimbal ñu rek dimbal ñu rek maa ngi koy jéegul sama mbokk yëpp ndax yow sa mbégte rek lañ war di tudd fuñ tollu dañ laa war di liggéey fuñ tollu sa xol suñu xol dañ cee war sax démb rek maa ngi koy waxtaanee ak am mbokk taale bi ma ne ko man sama dund boo ko doon résumé maawul xayaat la kese mm. suba yi guddi yi bëccëg yi ngoon yi mm. te waxoon naa la ne mm. su ma faatoo nekk ci biir bàmmeel sax xam naa ne suñu borom dafa na ne taw seefu ma lay liggéeyal ci biir bàmmeel ba keroog ñuy daje sa janatul firdawsi ci xam nga won ñu xakkanam suñu borom loolu rek lañ ñu bëggal mbokk loolu lañ bëggal mbokk taalibe yi nag ñu jéggal suñu rëcc rëcc yàlla na suñu borom bokk jéggal ñëpp alhamdulilah ubbil xol gën cee tàbbal ak leeram tàbb na ci waaye na gën a yaatu hmm. waaye waaye kiiraay lay dox ñori lay leer di tàbb ci noonu ñun ñëpp nañ koy daw lay tax leer tàbb ci noonu hmm. nañ koy sabab mooy ak ko sax ci من يسر سنوك ومن يسر سنوك ومن يسر سنوك xew di jàmm da nga xew dong nga xew dañuy soññante rek war di soññante waxtu wu ne loolu dong nga xew waaye dana kenn ko doon daw jën baax fii fii tuu ko kal moom soññante rek la ngay

mën na leen jërëjëf jërëjëf waaye loolu moom dama la koy dellu. ah kay dama doon joxe ànd yi. waaw dama koy doole di la ko jox. da ngay yokk nag taxawu fa ne. da ngay yokk te mucc. waaw jërëjëf jërëjëf